le logo télé bi ma joxe euh, euh, responsable ci parti rassemblement pour la vérité de moo chargé de l'artisanat du parti rassemblement pour la vérité de moo et propagande du parti di à avec euh, monsieur Pape Moudou Fall président rassemblement pour la vérité de moo

ci laa ko ne faaw nga liggéey ak directeur de l' emploi ci parti rassemblement pour la vérité dëgg moor mu doon ku ma ko nangul yii yëpp ay idéem la mu dem ba am xalaatu créer lu mel ni tey dajale plus de lu mat ay huit équipe neuf euh, def ak ñoom ay tournoi fi bañ toll tey ci final bi mu tudde ko parrainé ko président Pape Moudou Fall président rassemblement pour la vérité dëgg moo wóor président nag dafa génn nekkul Dakar nii actuellement ci week-end mi ngi ci région yi ci ay liggéey bëggoon na fi teewee trop moom Pape Moudou Fall mais jot gee ko may ci la ma ne noo ci am dimbali ma man dama waroon dem week Diourbel ma bul dem demal finalu euh, les jeunes de Guédiawaye ak Biram bien sûr je dina am aussi parce que ki mu àndal aussi Pape Moudou Fall képp koo xam bañ ko Pape liggéey Fall lañ Pape social Fall lañ koy wooyee addunaam yëpp lu amul dimbali ay doomu egg lum am jox am toog bu amul lum jox ni sax ay ronkañam ngay gis ndeysaan kooku la biram àndal li liggéey te bir na ma ni comme ni mu koy waxee moom Pape Modou Fall toujours ah dëgg moo wóor gi ñu tudd képp ku ànd ak ñun di dox ci dëgg nee na di nga dëgg fu wóor képp ku ànd ak ñun di dox di doxoo ci dëgg nee na di ngeen ànd jaaxaan moom mooy wax slogan boobu noonu ci moom laa ko jëlee muy waxu dëgg te biram gis naa ne mi ngi ci yoon te limu mu jàpp bu ko bawut dina ko defal ñeneen ñi ndax ni tàmbali na defal na fay formation ay femmes yo xam fi ci Guédiawaye way nañ pour la première fois ñom sax ñu dugg ci lu melni nii. nañ fi ci xëyu ndaw ñi jël nañ fi ay jeunes yu bari fi ñi ngi liggéey bu weer dee ñu touché sen salaire grâce à Pape Moudou Fall jaare ko ci jëm ji loola li ma ci gëna neex moy ki day fierté ji man du ki rek la mas a présenté Pape Moudou Fall mais képp ku mako présenter muy liggéey man daf may parce que man intéressé ndax dafa ak jeune leader bo Sénégal qui est xel Mon président Pape Moudou Fall c'est un chef de parti jeune borom universitaire ingénieur informatique le professeur universitaire kon docteur té kuy dox ci social la té bëgg un mu gëna a

xam nga ne loolu sport weesu ko mbër yoo xam ne làmb lañ leen xamoon tey ñoo toog ba ne sama ginnaaw nii di finalu final bu bi kon nag sama dernier moom mooy biram gën a la góorgóorlu bul gis succès mukk ci ni ngay doxee ndax boo ko gisee naagu te ku naagu daagu te boo daagoo ñu romb la muy jàppal nga liggéey toujours wane esprit leader parce que bu ñu demee ba désigné la nga nekk ab responsable de parti rassemblement pour la vérité dëgg moor fii ci Guédiawaye mooy président Pape Moudou Fall sas na la amaguma lu ma naqari ci moom te du mas a am incha allahu nañuy communiquer dina tegu ci yoon dina tegu ci lance bu baax ndax part de l' avenir la nekk ndax Sénégal nag dama bëgg ñu xam ne dañu bëgg léegi ay yeneen leader bëgg ay yeneen figure yu bees ñu bëgg ci biir terrain politique bu Sénégal te jëmm yooyu noonu ñime naa ci Pape Modou Fall te bokk na ci jëmm yooyu xale la am na xam-xam ay loxoom set na am na yéene ci doomu aadama yi am na expérience te l'homme de social la aussi jërëjëf. Euh, salaamaaleykum mbokku internet yi salaamaaleykum mbokku géejawaay euh, man la Mame Birame Dieng di responsable euh, parti rassemblement pour la vérité dëgg moo wóor géej à géejawaay di aussi président ay ASC dëkkandoo. waaw tey moom wax dëgg fa yàlla dama kontaan trop trop trop trop trop ci journée bi ni mu ni mu déroulé. ndaxte nga wootee ñu wuy si la loolu dafa neex ci xol mais nga woote tamit ay nit de valeur bàyyi seen i yitte ñëw. nga gis ñoo xamantene jeunesse bi yëpp dajaloo doon benn doon euh, benn bopp di xàccandoo di dóorandoo loolu mbégte la ci ñun donc ñun bu ñu ñëwee dañ ciy ànd ak xol bu sedd guy guy guy guyu ñëw nag ñu tuddee ko wax dëgg fa yàlla le président Pape Modou Fall di directeur de l'emploi mais aussi di président parti rassemblement pour la vérité dëgg moo wóor en même temps di coordonnateur u euh, euh, coordonnateur coalition républicaine sàmm suñu réew kon donc kooku noonu bu fekkee dañoo nekk ndawam nekk géejawaay di def liggéey bu am solo ba résultat yi di génn nii ñun dañuy am kontante waaw moo tax kontaan nañ trop trop trop trop. waaw loolu mooy sunu mbébét. ndax euh, comme ni ko Ndonga am waxee di sama grand di sama tuteur aussi ni mu ko waxee mooy que ne ñun dañoo am première mission mooy massification. mooy yaatal parti bi ba mu ñëw fépp fépp fépp ñun nag sas bi ñu jox mooy géejawaay. ci région de Dakar Géejawaay la ñu jox département de Géejawaay mu war a wër fépp ñu ngi ciy liggéey nag ndànk-ndànk waaye xam nañ ne am nañ yéene mu wër Géejawaay wër ba ci yeneen département yi. waaw non à la violence rek la ñuy lancé xam nga nawetaan ku ko xam-xam ne euh, rassemblement boo xamante ne jeunes yi ñoo ciy daje te jeunes yi aussi seen tempérament bokkul ku ci nekk ak tempérament am mais liñ leen di wax rek lii foo la ak ree kaf foo ree. kon donc dañuy wax képp kuy ñëw na nga ci play na nga ñëw esprit big ndax vacances aussi ñu ci élèves lañu bu ñu ñëwee ñëw pour vacances ou wu changer air waaw kon donc dañoo ñëw pour kaf aussi tamit di lancer waale acteur ñi nga xamante ne président mais aussi di membre bureau yi commencé ko ci ODECAF ak Oncaf. nga xamante ne dinañ gën sensibiliser population maanaam sensibiliser len ci lan ndax AIC association sportive et culturelle aspect culturel bi ñu koy mettre en avant bu ko défé dinañu permettre ñu mëna sensibiliser à travers la culture population bi ñu xamné li kat kaf ak fo ak ree mo waral première activité bi ñu def amna na yeneen activités yu ci top ndax bëgg nañ chaque quinzaine ñu def concert asiko bo xamné day ànd ak nuit du conte gaay dañuy tok di lepp mais lepp yooyu dañ lay won lan moy jom lan moy fulla lan moy fayda lan moy ngor bu ko nit ki bu ko Les bu rek dañ koy naw bu ragal du violence kon donc acteurs culturels yi mais acteurs euh, nawétan yi ñom devant de la scène ñom ño wara a de waaw rek ci journée bi de ak euh, di kontaan tamit ci pam Modou Fall di wax politique bi la mais avenir jeunesse bi la na parti bu am avenir la di leen ci woo yéen ñëpp di leen ci woo di remercier aussi sama grand Ndonga Thiam wax dëgg fa yàlla mooy sama tuteur fu ma teg sama tànk mooy fu ma tegloo sama tànk kon donc dama koy sant di ko gërëm di sant population bi yëpp di fam euh, supporteru ASC dëkkandoo yi di leen wax kontaan nañ bu baax a baax nañu àndandoo doon benn rek ca kaw ca